yàqu-yàqu yi di bari lool lu tolloog juróomi magasin ñoo daal di lakk fii ci sàndaga ñoom ñu lay daldi di ñàkk ay millions yu bëree bari soxna si di wuyoo si turu Awa fukki at ak juróom benn ak léegi mu nekk ci magasin bi di jaay tey daal na ñàkk lu bari ñu woo pompier pompier yàgg na balaa day ñëw ëpp na 20 minutes pompier ñëwul balaa day ñëw suñu place yëpp takk na xaalis espèce sept millions cinq cent moo sama boutique ak sama bagage daanaka ci bu minuit jotee la mbir yi daal di xewee fii ci marché bi ci jamono jooje ñëpp ñoo daal di woon tëj seen i magasin daal di ñibbi. li ko waral bokk na ci benn branchement clandestin bi nga xamante ni nii benn fil bu waroon dem fekk ji bi les panneaux publicitaires boobu le fil sax moo daal di dagg ci digg bi wadd si magasin yi jur. bi la jiyee suñu sukkandiku ci commercant yi. branchement la boo xam ne mi ngi jóge déppo mi nam ñëw ci benn panneau publicité am boo xam ne ni da ko def ci kaw tali bi pour visibilité fil boobu nag moo tàkk yàlla rek def sutura parce que boo xoolee dépôt bi fi mu ne ak fi tàkk maximum ëpp na 30 mètres à 40 loolu nag mu doon loo xam ne nii lu metti la. ñoom compteur bi moo explosé léegi fil bi dakk ci ñu wàddi suñu kaw magasin yëpp làkk. nakar bu tooy. kenn xamul ana seen ëllëg lu muy doon. mère célibataire la yor ma dara pour dund sama doom. depuis 16 ans depuis 16 ans maa ngi fi. mère la donc ay moyens la doon demee métti na trop boo ko déggee ci ni muy waxee sax nga xam ne xol bi jeex na ñuy ñaan yàlla ñuy ñaan autorité daal lu leen mën a jàppalee dimbali leen ñu jàppalee leen ko lu mel ni rek jamono ji ñiy xaarandi bu baax a baax njiit yi bees yi ngir rek ñu daal indi saafara ci li ni mel. ndax bari na li ñuy nemmeeku ay marché yu lakk fii ci Sénégal